yéen a ngi ci sunu people TV di chaîne YouTube bi leen di jox xibaar yi gën a wóor te leer wéy leen ci abonné ngir ngeen mën a dund xibaar yi wóor te leer moo xam actualité politique sport people buzz société lépp luy xibaar bu gaaw fii rek ngeen ko mën a amee bu ngeen bëggee jàllale seen ay publicité ci chaîne bi moo leen lu gaaw ci sunu numéro service commercial 77 732 12 35 bu leen fàtte di abonné ci chaîne YouTube bii di sunu People TV. dama toog fii bërki dem ne dootuma wax ci moom bàyyi naa ko à ma grande surprise dem mu fekk ma anniversaire ñoom sa kër Saari Xule fekk ma fa songu ma euh, jote fa ak man te jotewu ma ak moom dara. fi ma toog laa toog nee la lépp rek ñu ngi ko jëlee woon ci cadre fo mais dem naa ba xam ni liiru jaan bi ma ko seqal ab dof la te dof nag dafay am noo jëflantee ak moom fekk na ma fa poñe ma ci kanamu nit ñëpp cette fois si rien ne me fera reculer non je vais le faire parce que non mais xam nga soo waaw soo ko jëlee noonu du la may jàmm na ko ay bokkam jël ko yóbbu ko raffinerie fan faj ko walla ma yóbbu ko ci yoon ñu leeral sama diggante mu bàyyi ma tout tranquille Lirou Diane bokk ñu yoon man ak moom man du ma mbër bokk ma benn écurie man animateur la na ma bàyyi tout tranquille te dina ma bàyyi ñu bëreeg may ñaan nag di wax mais ñi mais ñi may ñaan dañu xamul lu leen li may daj loo sonal na ma trop te nag cette fois-ci c'est la dernière.